Euh, sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. tur bi naka la waaw Samb. Euh, Modou Samb seetaan nga discours Adji Sarr. waaw seetaan naa ko attentivement. nan nga ko gisee nan nga ko gisee. bon discours la boo xamante ne man affaire bi bi mu amee ba léegi Ousmane am nañ luñ xam ci moom bien avant que muy yëg si fii à lage tendre ah la doon jiile jiite mbooloo di jàng alxuraan di jooy. Adji propos yi émettre jusqu'à preuve du contraire d'où hein, du Sonko en personne moi séq ak dara mais affaire bi jinne la bo xamante ne je jël Sonko hein di ak mom ci ay jeex parce que man mënuma concevoir femme bo xamante ne yow ci d'après propos yi bim koy expliquer néna dafa tok ben instant nit feug ci buntu buntu mba buntu kii bi nu mu tuddati institution bi moom daal di jóg ubbi ko bi mu ko ubbee Ousmane ko nuyu ko dafa def directement ci salle bi loolu aspect jinne la benn